dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaaru yu wér te leen ngir dara bañ leen raw mangook ñu fas yéene rek daal di dikkaat ak yéen nag ci xibaar yi waxtaanee mbirum RTS nag ak acte bu noble bi nga xamante ni Pape Alé Niang daal dina ko def nekk jamono ji ku ñu tab mu nekk directeur général bu RTS moom nag ci bande annonce boo xamante ni jot nañ ko capté les échos du ñu dellu si rek di ñu xamal ne RTS xamle na rek ni euh, retour den kumpa émission la woon boo xamante ne la Diop moo ko doon def mu nekk loo xamante ne yàgg na di ko def mu toogoon nag ñu mettre loon xamante ni eh, booba Racine Talla mi ngi fi jamono jooju sax na mu toogoon ñaxtu woon ko mu metti woon waaye moom mi eh, ginnaaw nag patron bu bees bi di Pape Alé fas eh, fas yéene na laat nag lii di bi ba tax na rek mi ngi woo képp koo xamante rek dañ def frustré woon rek ci mbir moom mu nga tàmbali waat di ko seetaan ndaxte rek dina ko tàmbali les échos di ñu xamal ne acte la boo xamante ne nit ñi rafetlu nañ ko rawatina rek nag moom Ismaïla Diop mi nga xamante ne bañ ko écarté ci kanamu écran yi daal dina bari bokk na ci avantage message yi nga xamante ne mënoon na ko def Pape Alé Niang tey jii taxaw temm ngir euh, euh, ne rek euh, Racine Talla daf ko écarté woon mu fas yéene xëccaat la joxaat la poste ba nga xamante ni fa nga nekkoon waaye tamit top si doole kii di Ismaïla Diop mbiram doon na lu jaaxaloon askan wi ndaxte émission bi nga xamante ni mi ngi ko doon def yàgg na ba mu koy def ba muy gën a nekk ndaw waaye tey jii nag jëlaat na léegi ginnaaw nag activité syndicale yi nga xamante ni mi ngi ko doon amal moo taxoon nag kii di Racine Talla daal di ko mettre ci frigo Togo beneen ci ay xibaar bokk na ci révélation bu doy waar bi nga xamante ne Walf Fadjri daal dina ko fësal jëm rek nag ci président de la République Macky Sall France euh, France ak Macky ordre bi nga xamante ni jot nañ ko xamal Maroc ak France nag jamono ji ñoo sàkk woon euh, ci wàllum diplomatie rek président Macky Sall mu daal di dàkkal lu jëm ci ingérence dundam politique nag fii ci Sénégal Walf Quotidien di ñu xamal ne moom mi joxe bi la xibaar ni ki tey ji ca daal di fësal benn source boo xamante ni ab ngëm-ngëm la loolee la ko waxee jaarale ko ci Paris ak Rabat maanaam diggante France ak euh, fële nga xam ne rek moo di Maroc ñoom ñu wone sax nag euh, ay bretelles yoo xamante ne daal euh, ancien président bi fi nekkoon mi ngi ko doon amal ci réaction ci ay wooteem waaye tamit ci mobilisation yi nga xamante ni mi ngi ko doon def ay naataangoom ay jigi ñaaleem rawatina ñu bokk ci coalition benn bokk yaakaar ak APR li des nag doon leader goo xamante ni na ginnaaw nag ba nga xamante ni jot na passé témoin témoin bi maanaam jébbal lenge yi njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ci boppum Sénégal ñaari fan ci weeru avril président Macky nag dafa gaaw rek nag dem installé wu fa nga xamante rek mooy Maroc fa lay toog nag di amal mission yi nga xamante ne moom lañ ko dénk ñu gën ko xam ci envoyé spécial bu pacte de Paris ci wàllum planète bi ak askan wi noonu sax lañ ko souligner Le Walf Quotidien rek di dikkaat di xam ne ab obligation boo xamante ne rek ba tey jii mënu ko wax nit ñi publiquement waaye nag question la boo xamante ni ci wàllum politique ndaxte Sénégal yëpp ñu ngi ciy laaj ana moo tax mu tàmm euh, dem nag jeexale dundam fa nga xamante rek euh, moo di Maroc journal bi di ñu xamal rek ni éviter woon nag yegg sa fii ak yenn ci situation yi war na tax Maroc ak France daal di lëkkaloo ànd ngir mun ko dalal mu daal di fa toog waaye tamit xamoon na ne bu toogoon fii Sénégal autorité yi fii yegg duñ ko bàyyi benn yoon ndaxte lu yàggul dara dégg ngeen Boubacar Seye nag di njiital Horizon dafa sànni benn pétition boo xamante ni daal bu ci amee lu mu bëgg bëgg nañu teg loxo nag président Macky Sall teg ndoddam lii di euh, li nga xam ne mooy mandat d'arrêt international. ñu àddu waxtaanee ci wàllum tàggat yaram ak match yi war am diggante Sénégal Mauritanie ak euh, République démocratique di Congo Aliou Cissé nag di entraîneur bu gaynde yi daal dina def ak conférence de presse tey jot na xam ne nag ñi nga xam ne woo na leen waaye kañ ca gisul mooy nag kii di Cheikhou Kouyaté ak Boulaye ndax ñoom ñaari joueurs yooyu woowu leen bokkul ci li nga xam ne ay habitude moom na national bi dafa tàmm nag di jël ay joueurs boppam yoo xamante ne moom moo leen di tànn waaye bi la yoon ñi nga xam ne convoqué wuñ leen fësal na liste bi gis nañ ci nag ñoo xamante ne ab service la ñu nekk ci cadre liggéey ku mel ni Cheikhou Kouyaté ak Boulaye Dia ñoom loo tax mënuñu ñëw bokk na ci nag ci ndaje yi nga xam ne moo war a am diggante Sénégal ak République démocratique du Congo juróom-benn fan ci weeru juin ak Mauritanie juróom-ñeenti fan ci weeru juin loolee nag dafay wane ñetteel ak ñeenteelu bëccëg éliminatoire bu mondial 2026 bi nga xamante ni Aliou Cissé nag mi ngi bi ngir rek fas yéene def kéem kàttanam rek ndaxte mën a am moom Aliou Cissé nag daal dina passé patron bu gaynde yi lay justifié nag choix bi dem ci ñaari joueurs yooyu nga xamante ni dañ leen di waxtaanee di Cheikhou Kouyaté ak yi nga xam ne mooy Boulaye ja nee na jot na leen nag woo waaye nag ñoom dañ nekk ci yeneen activité noonu nee na jot na nag waxtaan ak Cheikhou Kouyaté ak kii di Boulaye Dia wax na leen nag ni ñoom duñ mun a bokk ci ñoom duñ mën a bokk ci équipe bi ndaxte bokk na ci ñaari match yi nga xamante ni daal duñ ko joué waaye loolee du du du question que ne ñoom duñu jugé ci yenn max yi ndaxte du sanction aussi waaye choix boo xamante ne rek dañuy préparer saison yi nga xamante ni mi ngi ñëw ndaxte ku seetlu Cheikhou Kouyaté ci mm, saison bu métti la jóge boo xamante ne daanaka sax nag joueur yu bëri waaye tamit kii di bulaay Dia bëgg rek noppaleen waaye tamit may leen tuuti ñu noppaliku moo tax rek euh, kii di Aliou Cissé bàyyi leen jël ñeneen waaye nag bu kenn jàppee ne dafa tànn kii bàyyi kii lu jëm tamit ci wàllum nag euh, nationalité ñi nga xamante ne dañuy change nationalité ci gaynde yi jot na ci àddu moom Aliou Cissé ak plan yi nga xamante ne daal dina ko teg ngir mën a am ndam ci kaw Guinée ci kaw ñii di euh, Congo ak waxtaanee leneen rek jëm ci mbirum Bah Diakhaté nag nga xamante ne moom li placé nañ ko nag su mandat de dépôt moom nag mbiram jeexagul ndaxte nag njaboot ñi nga xamante ne rek moo di euh, Badji Didier Badji nag jot nañ ko daal di teg ndoodam ab plainte moom ak kii di Suzanne Camara Ahmed Suzanne kamara ñoom ñaar ñooñu rek nag jamono ji plainte yi ñu ngi gën di bëri nag jëmale rek ci kii di Bah Diakhaté ginnaaw bañ ko placé sous mandat de dépôt ba ñu koy toppee lu jëm ci offense au premier ministre maanaam yëkkati ay kàddu ñaaw jëmale ko ci élément di jawriñ bi am na beneen plainte boo xamante ni tegaat nañ ko ci mboppam kii di Ababacar Mbuubu ànd sàmm jikko yi activiste bi ak pro APR nag moom mu ngi ci ku beneen poursuite judiciaire boo xamante ne daal dinañ ko teg ndodam moom nag bi yoon mi ngi jëm ci njabootu feu adjudant chef Didier Badji mi nga xamante ni dafa ñàkkoon bakkanam ci anam joo xam ne kenn xamul nan la Badji nag ñoom nee na ñu ngi jooy seen doom te noppeeguñu waaye nag mënuñu gis nag lenn ci ay kàddu ñoo xamante ni ñu ngi déposé nag ay mbiram moo tax daal kii ba mu ci àddoo ci lu nu mel ñu daal di jëw ci ajuma ji ab plainte nag jëmale ko rek ci moom mi di ba jaxate fas yéene àddu ci table juge d'instruction ñu waxtaanee ko ba jaxate nag ak Suzanne Camara ñoom nag ñoom ñaar ñoo ñëw daanaka dafa amoon lu ñu mosoon bind si seen page Facebook baatu dëgg noonu lañ ko tuddee visé woon sax nag atteinte ak image yoo xamante ni dañuy honoré lu jëm ci wàllum professionnalisme agent de l'État ginnaaw ba ñu toppee ci lu jëm fësal ci ay xibaar yu wérul complicité diffusion de fausses nouvelles ab plainte boobu sax nag njabootu Didier Badji nag mi fi bàyyi ñoom nee na duñ bàyyi benn yoon ancien régime bi fi nekkoon daanaka moo faat seeni doom rôle bi waroon ci enquêteurs yi def ko defuñu ko ndaxte ragaloon nañ rek nekk fësal nga xam ne moom moo fi am nag di avocat wu njabootu famille yi ñoom nag hésité wuñu benn yoon fas yéene dem ba ci attikat yi mensonge fait weddi li nga xamante ne rek moom lañ daal di wax ci kanamu plateau télé bi ñu bari nag ci ñu information yoo xamante ne lépp ñu ci wax du dëgg du yoon dañ doon sosal rek nag famille bi moo tax nag dañu mere nee na rek faw ñu daal di verse ko ci kaw kii di euh, Cheikh ki nga xamante ne rek moo di Bah Diakhaté jiite woon ko nag kii di piloté par maître Cheikh Khoureyssi Ba ak Ousseynou Gueye ak Patrice Kabou ñoom ñoo fas yéene nekk avocat njabootu Dj Badji si kanamu kii di ba Diakhaté ak Ahmed ak Camara